asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi dal leen ak jàmm ci settantal yi nga xam ne dañ koy def ci téere bi di taqdisul ashxaas fil fikri suufi ñu ngi nekkoon ak yéen ci page quatre cent soixante et un di mabxas bi nga xam ne mooy wax ci alxulul ak littihaad ak waxdatul wujud ñu jàngale woon lu aju ci wàllu xulul ak xeet yi nga xam ne moom la am ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fas ñu nekkul jullit ak ni nga xamee ne noonu la duggee ci biir tasawuf tey nag ñu yegg ci ci alittihaad alittihaad dafa mel ni soriwuñu paas boobu ba tey ñu ngi si 462 nga xam ne fi la ñuy fekk li aju ci wàllu littihaad borom téere bi daf ko xamle xamle win bii mu ne wa amma littihaadu fa huwa imtizaaju shay'ayni wa ixtilaatuhuma xataa yasira shay'an waaxida nee na littihaad mooy jaxasoowug ñaari mbir ba mujj daa di nekk benn mbir loolu nag cheikh bi mu ngi ko toxalee ci téere bu ñuy wax at taarifaat fa la ko toxalee ci page neuf léegi su ko defee ñu continuer dem ci beneen page bi jëli la aju ci littihaad ba jeexal ko ñu doog a dëppaat ñëw ci paas bi ñu nekkoon nee na wa yanqasimu littihaadu aydan ila qismayni nee na noonu nga xamee ne xulul amoon na ay xaaj nee na kadalika littihaad moom itam am na ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi mooy littihaadul xaas mooy bennoo gi nga xam ne bennoo gi nga xam ne daa am ñu ñu ko jagleel nga xam ne neewuñ ne borom bi tabaaraka wa taala dafa bennoo ak mbooleem mbindeef yi waaye daa am ay mbindeef yoo xam ne dañ naan ñoom la borom bi tabaaraka wa taala bennoo wat loolu nag moo xawatane dontu ne benn baaxu si waaye moo xawatane te moo gën a woyof itam ñu ne borom bi tabaaraka wa taala amam gi mooy amuk àdduna bi lépp lu nekk ci àdduna bi yàlla la comme ni muy ñëwee dontu na benn baaxu si waaye bii moo gën a woyof loolu na ñi ñuy wax alyaqubiya ci nasaraan bi ñoom gëm nañu pas-pas boobu ndax danañ wax ne inna allahuuta wannaasuuta ixtalata wamtazaja ka ixtilaati labani bil ma dañ naan borom bi tabaraka wa taala ak isa dañoo bennoo jaxasoo ni ki nga xamee ne ndox ak soow noonu la ñu jaxasooyee waaye itam nag am na ñenn ci biir lislaam ñoo xam ne lii wàcc na ci seen kaw ñoom itam ñu daal di ko gëm mu ne wa huwa qawlun yaqulu bihi baadu almuntasibina ila al islaami fi baadi al ashxaas nee na wax la joo xam ne it am na ci ñuy askanoo ci lislaam ñoo xam ne dañ koy wax nee na ñaareel bi mooy al ittihaadul aam mooy littihaad bennoo goo xam ne dafa matale maanaam dafa daj kàpp waaye bàyyiwul dara mu ne wa huwa qawlu almalaaxidati alladina yazcumuuna anna allaha aynu wujudi alkaainaat mu ne nag loolu ña koy wax mooy ñuy tuddee malaxida yi nga xam ne ñooña nit ñu yées lañ ñoo xam ne gëm borom bi tabaraka wa taala sax dafa des si ñoom gëm borom bi tabaraka wa taala si boppam dafa des si ñoom ñooña dañuy gis ne borom bi tabaraka wa taala moom mooy amug mbindeef gi amug mbindeef yi bi maanaa suñ borom tabaraka wa taala mooy lépp loo xam ne nii yaa ngi koy gis rek loola borom bi tabaraka wa taala la ndax ay xaaj-xaaj la ci moom mu ne wa hada al qawlu huwa al muabbaru anhu bi waxdati al wujud mu ne wax jooju la ñuy tuddee waxdatul wujud nag comme ni nga xamee ne noonu lañ ko gisee si kanam kon wax ju njëkk ji di it littihaadil xaas moom day wax ne yàlla dafa am jëmm yum bennoowat waaye du lépp la bennoowat waxu ñaareel ji di littihaadul am moom day wax ne borom bi tabaraka wa taala moom mooy àdduna bi lépp lu nekk ci àdduna bi yàlla la subhanahu wa taala moo tax mu daal di ne wa huwa charrul aqwaali maanaam lii moo gën a yées ci wax yi comme ni nga xamee ne cheikhul islam ibnu taymiyata rahmatullahi alayhi noonu la ko waxee mu ne li anna ulaika qaalu inna rabba yattaxidu bi abdihi alladi qarrabahu wastafa nee na ndax ñële dañoo wax ne borom bi ki muy bennoowat mooy jaamam bi nga xam ne daf koo jegeel te tànn ko kon ñoom am na ñu ko jagleel ñu jagleel ko ñi ñuy màggal ñu mel ni masih de isa alayhi salaam wala wa ay waliyu ñu jagleel ko ñooña waaye nag ñii nga xam ne ñoo gëm littihaadul am ñoom moom dañ koo boyal mu daal di yegg ci yépp xajak mbaam xuux ak salteeg tilimag yépp ñoom dañ naan yàlla la waaw suñ gisoon ab xaj sax dañ naan yàlla la moo tax dana ñëw ci biir téere bi kenn si ñoom daa ànd ak benn taalibeem ba mu yàgg ñu gis ab xaj boo xam ne na mu mel doy na waar mu ne ko ah ndem yéen da ngeen di wax lépp yàlla la xaj bi moom loo si wax mu ne ko moom it moom it de moom la de waaw moom it moom la bi maanaa xaj bi it yàlla la kon ñoom noonu lañ koy matale buñ gisoon mbaam xoox dina mbaam xoox yàlla la waaw ñoom dañu naan àdduna dara amu fi li fi nekk lépp yàlla la waaw su ko defee nag mu ne su fekkee ne borom bi tabaraka wa taala ñi waxoon ne isa alayhi salaam mooy yàlla ñooñu yàlla dana ñoom yéeféer lañ waaw kon koo xam nag ne bu gisee ab naafeq ne yàlla la su gisee ab xale ne yàlla la su gisee ab dof ne yàlla la su gisee sobe ne yàlla la lum gis rek ne yàlla la kooku moom lu mu war a doon ndegam kële moo wéet di borom bi tabaraka wa taala yàlla nee na ci alquran laqad kafara alladina qaalu inna allaha huwa almasihu bnu maryam yàlla nee na ñi nga xam ne dañoo wax ne de borom bi tabaraka wa taala mooy masih mooy isa ibnu mar mooy yàlla borom bi tabaraka wa taala wala ñi nga xam ne dañoo wax ne masih ibnu maryam mooy yàlla borom bi nee na ñooñu weddi nañ ñooñu weddi nañ kon nag ndegam ñoom koo xam ne jaamub yàlla la ku jege yàlla yàlla tànn ko ba mu yegg ci maqaamab yàlla yónni ko bañ taxawee ne kooka yàlla la yàlla ne ña wax loola weddi nañ yàlla nekk nañ yéeféer ma ne kon koo xam ne day yàlla loo xaj di yàlla loo mbaam di yàlla loo golo di yàlla loo salte yeeg tilim yeeg yépp nag kooku moom lu ñu war a jàpp ci moom te it nag ñu xam foofu bu baax a baax ne ñii nga xam ne dañoo gëm pas-pas bii am na si ñoo xam ne dañoo jàpp ne ni ñu ko gëmee mooy dañ ne ndegam yàlla moo bind lépp lu ñëw ci àdduna lu ñëw ci àdduna bi lu nekk yàllaa ko bind ndegam loolu la kon borom bi tabaraka wa taala buñ naan moom lii yàlla la wala buñ naan xaj bi yàlla la wala mbaam yàlla dañ jublu rek la ne si yàlla la jógee yàlla moo ko bind waaye déedéet ñoom gëmeewuñ mbir mi noonu de loolu nañ ko leeral bu baax gëmeewuñ ko noonu moo tax fii cheikh bi dafa toxal wax joo xam ne dafay firndeel loolu mu toxalee ko ci ku ñu wax Abdurrahman Badawi wax jooju nga xam ne cheikh bi mu ngi ko toxalee ci mu ngi ko toxalee ci téere bu ñuy wax chatahaat chatahaatu suufiya fa la ko toxalee chatahaatu suufiya kooku dafa wax ne walittihaadu billahi an yasira almuhibu walmahbubu cheyan waxidan filan ñoom bennoo gi ñuy woote ne moom la yàlla bennoo ak mbindeef yi dañu naan loolu bennoo la goo xam ne gu wér la jubluwuñ si ne yàlla subhanahu wa taala moo bind xaj bi ndegam moom moo ko bind rek kon mën nañ see xool gis si yàlla day da ñoom jubluwuñ la dañoo jublu ne xaj bi si boppam yàlla la ndax xaaj la ci yàlla ndax ñoom dañoo gëm ne lépp lu nekk ci àdduna bi yàlla la loolu moo tax mu ne kon ñoom dañoo gëm ne benn mbir la ci jëmmu ak ci lépp nag ak ci coobareeg yépp ndax dem na ba nga xam ne boo joxoñee amul koy joxoñ loo joxoñ rek yàlla la amul ñu ne lii mbindeef la lii yàlla la déedéet mbindeef yee yàlla yàlla mooy mbindeef yi kon lenn rek moo fi nekk kon ñooñu pas-pas boobu it kadalika noonu la ñu ko gëmee su ko defee bokk na ci li nga xam ne dafay firndeel loolu ba tey wax ji nga xam ne cheikh bi toxal na ko ñu jëlee ko ci abi yazid mu si doon wax ak suñ borom tabaraka wa taala nga xam ne dafa wax ne kunta li mir'atan fa sirtu ana al mir'a maanaam borom bi lay waxaat ne ko yaa doon suma seetu waaye ma mujj nekk man seetu ba yaa doon suma seetu ma mujj nekk man seetu bi Abdurahman Badawi mu ne cheikh bi mu ngi ko toxal ba tey mu ne amma wa qad balaga abu yazid hadihi almartaba allati taalu fawqa maqaami alanbiyaa'i falyuthib alwathbata alakhira liyalhaqa biluluhiyati nihaiyan fayasira huwa, huwa wallahu shay'an wahidan nee na uh, wax ji abu yazid wax ne borom bi tabaraka wa taala yaa doon suma seetu léegi ma mujj nekk seetu bi mu ne ndegam abu yazid yegg na ci martaba bii nga xam ne kowe na maqaamab anbiya u yi kon de bu yeboo siqi benn jéego rek daa di yegg ci nekk yàlla moom ak yàlla yëpp ñu daa di nekk benn moom ak yàlla yëpp ñu daa di nekk benn mu ne wax ji di wax joo xam ne ju màgg la mooy gëm ne borom bi tabaraka wa taala dafa bennoo ak mbindeef yi wax la joo xam ne ñi koy wax niiroo nañ si ak nasaraan bi ak ñi nga xam ne ni ñoom ñooy rafida rafida yi nga xam ne ñooy chia yi moo tax Razi dafa wax ne mu ngi doon melal ñi nga xam ne ñooy xululiye ci ci ci waa suufiye yi mu ne ñooñu ay nit lañ ñoo xam ne tuddoon nañ leen dañoo gisal seen bopp ay melokaan yoo xam ne yu yéeme la waaye yi nga xam ne mooy xam-xam yi nga xam ne mooy xam-xamu xel yi nee na amuñu sa lu bari su ko defee ñu daal di njorto daal di foog ne xulul ñëw na si ñoom wala littihaad ñëw na si ñoom ñu daal di woote ay woote yoo xam ne yu mag a mag a mag la Razi daal di wax ne wax jii nag ki nga xam ne moom moo ko njëkk a fent njëkk ko feeñal ci lislaam mooy rawaafid yi nga xam ne di ñooy chia yi nga xam ne ñoom ñoo woote woon ne xulul dafa wàcc maanaam borom bi tabaraka wa taala dafa wàcc ci seeni aimma ci seeni njiit borom bi tabaraka wa taala daf sa wàcc kon su ko defee dañuy delluwaat mottali la nga xam ne moo desoon sa paas ba ñu jógee woon mooy li mu wax ne wa falsafatu al ittihaadi wal xululi inda suufiya tufassaru bi anna lil xubbi l ilahi naaxiyatayni maanaam foofu paas boobu li muy wax mooy xulul ak littihaad li leen tax a jóg léegi xam le nañ xulul xam le littihaad li leen tax a jóg ñoom ñaar te mooy wax ne yàlla day wàcc ci mbindeef yi wala yàlla dafa bennoo ak mbindeef yi li leen tax a jóg day leeral ne mbëggeelug suñ borom tabaraka wa taala dafa am ñaari boor benn boor bi mooy borom bi tabaraka wa taala moom moo la bëgg yow mbindeef mi ñu ne ah loolu de mooy jur alxulul su fekkee ne borom bi tabaraka wa taala moo la soppal boppam kon day wàcc ci yow ñu ne ñaareel bi mooy yow nit ki yaa sopp borom bi tabaraka wa taala di dox jëm ci moom ñu ne ah loolu kat kon mooy jur bu yàggee ngay dox te taxawoo da ngay mujj bennoo ak borom bi tabaraka wa taala da ngay mujj bennoo ak borom bi tabaraka wa taala loolu nag xam ngeen ne wax la joo xam ne ju doy waar la looloo tax ñi nga xam ne dañoo gëm littihaad dox boobu nga xam ne ñoom gannaaw bu ñu waxee ne ñoom dañoo bëgg yàlla dox boobu ñuy dox jëm ci yàlla ñoom dañuy tuddee dox bi mi'raaj di ak yéeg jëm ca borom ba tabaraka wa taala niirale koog yéeg gi nga xam ne moom la yàlla yéegee woon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu dem ci kaw ñoom dañuy wax sax ne ñoom dem nañ ba romb fa yonent ba demoon ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba ñëw neewul benn yoon dama bennoo woon ak borom bi tabaraka wa taala wala dama amoon ak xulul kon waaye dañuy gis ne ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk si tasawuf te gëm pas-pas bi ñoom dañuy gëm loolu moo tax jëlal waxi ibnu ibnul farid mu ne wa min ana iyaha ila xaytu la ila arajtu wa attartu lwujuda bi rajati mu ne ci maqaamaam ana iyaha maqaamaam ana iyaha maqaama boobu sufiyanke yi dañ koy tuddee alfanaawu mooy jeex ci yàlla danañ ko di tuddee it aljamu aljamu lu muy tekki mooy bidaayatul ittihaad mooy commencement wu bennoo ak yàlla nee na ci maqaamu mu mu laa tuxoo jëm ba yegg ci place boo xam ne amatuma fenn fu ma jëm amatul place boobu amatul fenn foo ko mën a xayma wala nga mun ko faa nat mu ne falaa yéeg nag gis nga wa attartul wujuda bi rajaati bi may dellu see nag ma daa di cuuraay adduna bi daa di ko parfum si sababu delsi gi nga xam ne moom laa delsi moo tax cheikh bi toxal foofu waxi charix bi ki nga xam ne moom mooy charx diwaanu ibnul farid mu ne harajtu min maqaami ana iyaha wa huwa ibtidaau littihaad mu ne yéeg naa jóge ci maqaamam ana iyaha te nee na loola maqaama booba mooy commencement wu bennoo ak suñ borom tabaraka wa taala moo tax mu ne wa min qawlim ana alxaq laa ilaha illa ana faabudun daneen di yegg ci daraja boobu daa di wax ne man maay yàlla amul kenn kuy yàlla kudul man na ngeen ma jaamu ñi gëm pas-pas bi dañuy àgg ci maqaama mu mel nii yàlla na borom bi tabaraka wa taala musal ñu ci lii mu ne nag noonu laa continuer ba ma yegg ci ila an wasaltu ila maqaamin laa nihaayata fihi ba ma yegg nag ci maqaama moo xam ne amul fenn fenn fenn foo xam ne fa la yem nee na nag wa attaral wujuda bi rujuihi mu daa di xeñal adduna bi yëpp xet gu neex nag litisaafihi bi sifaati arrahmani wa ittihaadihi bi dalika bi dalika al bi dalika al maliki dayyaan mu ne mu daa di delsi nag xeñal adduna bi ngir na léegi moom melo woon a melokaanu borom bi tabaraka wa taala waaye bennoo na ak borom bi tabaraka wa taala taala allahu an dalika kulli yàlla kowe na walis loolu walis mbindeef di bennoo ak borom bi tabaraka wa taala bañ nekk benn wala borom bi tabaraka wa taala di wàcc ci li nga xam ne nii moom mooy mbindeef kon nag incha allah foofu la ñuy taxaw tey bu ko defee ñu delsiwaat beneen yoon leeral li nga xam ne moom mooy waxdatul wujud incha allah dontu ne am na fu mu bokk ak littihaadil am bi nga xam ne moom lañ tuddoon su ko defee foofu la ñuy continuer incha allah sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu